ngeen jëf mbokki safo télévision Futur Média daleen ak jàmm ci euh, xibaar yi li ci euh, gën a fës suñu namm leen ko euh, jukkil ni ki tey jilee bokk na ci génn àddina ki nga xam ne nag moom moo di na Cheikh Aya ibnu Cheikh Tali Bouya ibnu Cheikhna Cheikh bu xalif général yu xaadir moom moo fi wàññeekoo ni ki tey jilee moom mi le daal di nekkoon li nga xam ne nag moom moo di huitième xalif bu confrérie confrérie xaadiriya moom itam wutu woon ki nga xam ne nag euh, moom moo di ma ay dara ci euh, samay kàddu télévision euh, Futurs Médias ñu ngi koy jàll képp koo xamante nii rek yaa ngi bokkoo ci umma ak itam ak axlu bayti rasul ñuy ñaan sunu borom daal di koy atte ci yërmandeem waaye itam yokk leeram bu baax a baax moom mi nga xam ne moom moo fi bàyyeekoo nekkoon huitième xalifa bu confrérie xadriya mbokk yi daañu ci ñëwaat nu mu gën a ci suñu yeneen jotaay xibaar bépp xibaar wax xamante ni ñeel na li nga xam ne nag moom moo di jëmm jile nga xam ne daal na fi bàyyeekoo ñu dikkaat ci beneen xew-xew fii ci réew bu Sénégal wala bokk ci àdduna wëngal këpp ni ki tey jile ñuy màggal li nga xam ne moom moo di dimanche Pâques mu mel ni nag suñu mbokk chrétien yi daal dinañ koy màggal bu baax a baax ci aw booloo ak ñaan yoo xamante ni nag ñu ngi ko doon amale Notre-Dame des Jonches paroisse wi la nga xam ne nag moom moo nekk ca diwaan bu Wakaam Alxasan Ba Jaafara Ba ñoom ñoo fa doxantu woon ñu teewlu reportage. xel ak xol bu dal la am ci jamono ji ginnaaw bi mu wooree lu tollook ñeent fukki fan tey ci dibeer gi ñoom fidèles chrétiens yi ñuy màggal li nga xamante ni moom mooy résurrection. ñeent fukki fan ñu ngi koy woor ba tey jii ñuy fete euh, dekkaleku yéesu mi nga xam ne dafa dee ñetti fan mu dekkaleku donc ñu ngi koy fete mu nekk euh, mbégte ci àdduna si sépp nekk na bés bu spécial ci ñoom ndax tey ji dafa nekk li nga xamante ni moom moo samp ngëm-ngëmu chrétien yi. mu nekk nag woote ci ñun chrétien képp chrétien dañ laa sant nga ànd di def lu baa di wax lu baa loolu mooy wane ne yaa ngi topp Yeesu Krista. kàddu yim leen di faral di dénk moom la génnewaat niki tey moom abbé Gabriel bëgg ñu tënku ci ngir seen ngëm gën a yokk. maanaam nit koo gis. daa mën a di nekk di wax lu baax di def lu baax loolu bàyyiwul kenn ñëpp a ko moom paak ñëpp a ko seedoo ndax ñu mën a am mbégte si ñu biir a ñu ngi nii di jeexal jeexal nañu suñu jamaano koor yéen a ngi ci seen jamaano koor suñu mbokk euh, si jullit yi euh, loolu yëpp nekk di ut yàlla rek la ñuy ut. ñu ngi ñaanal jullit yi bu baax a baax a baax. fa ñu ñu duggee nii ci koor gi nañ ci génn ak jàmm ak salaam loolu lañ leen di ñaanal ñu bokk ko ñun ñëpp comme nañ ko bokkee ba fa ñu toll nii. Haba Jeannette Césaire moom mu ngi bàyyi ko ca Guinée mbégteem nekkut li muy nëbb. parce que après boo dundee lu métti ba noppi mbégte moo ciy topp moo tax tey jii nag damay wane sama mbégte di ko féete ak samay xarit donte sax euh, sori naa lool sama dëkk sama njaboot euh, li ma nar nag tey si ngoon mooy dem ci ñi nga xamante ni ñoom ñoo ma dalal fii ci Sénégal ñu lekk naan fecc fete loolu moo fi am. tey jii nekk bésu résurrection nekk bésu fête itam moo tax nag ñoom ñi ñu solu ba rafet ngir màggal bis bi. jërëjëf Alxasan Ba ñu sant ko baax baax gërëm ko waaye itam ndokkal suñu mbokk kercen yi bu baax baax ci bés wile ñu wax ba tey ci lu soxal wàllu euh, diine moom Moustapha ture moom euh, bàyyeekoo ca région euh, bu Diourbel daal di jël li nga xam ne nag moom moo di septième édition bu grand prix bu récital bu Coran nga xam ne nag Sénico moom moo koy daal di amal lu toll ci ñaar fukki million ci suñu ay koppar itam daal nañ ko koy jox ba noppi itam daal di koy jox li nga xam ne moom moo di billet Makka ngir rek rek mu ziyaar ji yonent bi sallallahu alayhi wa sallam du ci dikkaat ci ñu yeneen jotaayu xibaar ñu des ba tey ci alxuraanul karim ni ki euh, jamono yi nag jot nañu daal di euh, jëmmal wala bokk bàyyi xel bu baax a baax ci li nga xam ne euh, moom moo di daara yi ndax itam li nga xam ne moom moo di tolluwaay bi nga xam ne am nañ ko ci yile jamono ndax itam doomu réew bu Sénégal ñoo fi bàyyeekoo di amali jongante fa nga xam ne nag moom moo di ca biti réew ak fu nekk teewul tam dañuy indi ay ndam fii ci réew bu Sénégal lañ ak benn doomu daara woo xamante ni daal nay dikkaat ci wàll wi ñu seetaan reportage. Cheikh Baye Ndiaye lay wuyoo moom mile di doomu daara ci la jamono taxawaayam bokk na ñu gën leen a jox li nga xam ne moom moo di seen ak ak seen yelleef jëmale ci li nga xam ne rek moom moo di daara yi. ban base la ndongo daara yi teg seen tànk ba mën a tax ñoom fu ñu génn rek mën a raw ku nekk il faut état di poser question bi di jël ñi nga xamante ni xam nañ. domaine bi xam nañ milieu bi mooy lan ñi nga xamante ne am na ci solution muy wax ak ñoom su ko defee solution boobu noonu am na nu koy état jëlee liggéeyal ko ànd ak programme am dana jëriñ état bi te dana jëriñ société bi waaye dana jëriñ diina ji. yenn ci doomi réew mi faral di dem ci yeneen réew ngir amal li nga xam ne moom moo di jàngum alxuraanul karim bu ñu sukkandikoo ci kile di xam rek ne jot na réew mi daal di leen di bàyyi xel te saa yi ñu egg see ñu daal di leen di tatagal. ñu demaat ba jël ay ndaw yoo xam ne dañuy dem ay Dubai. dañuy dem ay Malaisie dañuy dem fu nekk ci àdduna bi di gañe ay trophée comme senegal ndam yàgg na fay am te dëkk bu yàlla xaasal la te dëkk bu yàlla may la ndam yooyu nag nan lañ koy jëlee ba mën koo jëriñoo mu jëriñu loolu la ñuy wax. almoodu yi nga xam ne nag dañuy faral di toltolaan ci yenn ci ay gox. moom mi la bëgg-bëggam bokk na eh, ci rek gouvernement bu Sénégal gën a moderniser li nga xam ne moom moo di daara yi bu ko defee xale yooyee eh, mën fa toog wàccee fa alxuraanul karim ba nuppi itam am ci loo xamante nii eh, des na ci mën a jàpp. ñu am nañ programme boo xam programme bu leer na. mën nañoo jël nit defar ko ba mu baax jox ko société mu liggéeyal société am waaye ñooñu nag foog ñu jàppale leen foog ñu appuyer leen suñ leen appuyer wu tey. moo tax waral gis ñi ngay gis rek te déjà ñi ngay gis ñoo ñu ci bëri business la rek ay ñeneen ñu du sénégalais ñoo koy def leer na gis nañ fi fan yi ñuy jël ay ñoo nga xam ne ay Niger lañ jugee ko jël leen yeb leen ci ay avion parce que dañoo gis na Sénégal dëkk bu am yërmande la dëkk am na beneen programme bu mu war a teg ba ëllëg tey waratu ñoo toog di gisati benn xale di taxawal ci mbedd mi. alxuraanul karim doon lu am solo ci li nga xam ne rek moom moo di diine gi lislaam tax na itam xale yi nga xam ne war nañ leen a nàmpatal ci lépp lu ñeel wàllu diine gi bëgg nañu gën koo jëmmal fii ci réew bu Sénégal. jërëjëf ñu àddu ba tey ci leneen ca diwaan bu golf sud foofee nag mu mel ni diggante wi neexul benn yoon ak ki nga xam ne ah, moom moo di jiit bu bokk mu ba fa moom Khadija Mahécor Diouf ak itam lu toll ah, ci juróom benn fukk ak juróom ci ay technicien de surface ñi nga xam ne nag dañu yëngu ci wàllu ah, mbalit mi la ñu xam le moom moo di seen ak dàkk dara waralu ko lu dul lekk mbirum politique ndax ki nga xam ne itam moom la wutu di Aïssata Diawara ba mu fa jugee mbir yi lee daal di eh, xew dañuy teewlu maman soxna eh, moom moo yoroon seen ay kàddu ci micro ki nga xam ne nag eh, moom moo di Abdoulaye Anne. deux ba ñu amee contrat deux ans madame la maire Aïda Sow Diawara mu fi jógee woo ñu réunion ni yoon moo ko may ni nañu defal ay embauchement kon ay décision la ñuy defal Khadija Mahécor ba mu ñëwee première chose bi mu def trois mois sans salaire mu dàq ñu ñun ñëpp indi fi ay nitam teg leen lu tax mu bëgg toroxal ndax lan affaire politique nekkuñu fi ñun ay mère de famille lañ ñoo yor sunu kër yi boobu ba léegi yalwaan la ñu sant ndax boo dàqee ay nit amuñu lu ñu fayee seen location amuñu lu ñu dundee dañuy dem di yalwaani ji wala ñu dem di def lu bon te loolu ñun ñoruñu sunu liggéey moo ñu ñor dañoo bëgg a liggéey. ci loolu nag ñun bàyyiwuñu mbir mu sedd dem nañ inspection du travail déposé nañ on a pris des avocats duñu bàyyi mbir yi mu sedd lenn nag day am day mën a reconduire ñi ci jàmm. mu liggéey bu ko mënul du moom maire boobee nag ci yile jamono xam na rek xel ne bëggagul àddu ci mbir mu ni mel ñu utali diwaan bu bustaan xam ngeen ne ca diwaan bu Kaolack ndàngaan la nekk foofee nag mu mel ni aw immeuble boo xamante ni bëgg nañ ko fa amal askan waa ne du ca dal ndax itam espace woowee soxla nañu ko leneen du dul rek amali immeuble ak yeneen yu ni euh, xeetoo ñu teewlu ki nga xam ne nag moom moo di euh, Alioune Badara Ndaw moom moo yor kàddu ko boobule collectif ne du ca dal la ñu teewlu ay kàddoom. réunis en tant que riverains habitants à Kaolack. Il s'est trouvé que nous voulions vraiment prendre en charge notre cadre de vie, améliorer un tant soit peu notre environnement immédiat. Et contrairement à ce que nos autorités sont en train de faire, c'est-à-dire maire yi nga xam ne ñooy mairie Kaolack man dama yaakaar ne euh, fi nga xam ne ñëpp a ko bokk boulevard de la liberté nga xam ne askan bee ko moom waaye nga jël benn particulier muy benn promoteur privé nga daggal ko fii sur une distance de deux kilomètres sept cent daggal ko fi ko ko daggal ñu ne madame le maire la lan la préfet wax préfet na la le 2 février donc 23 jours après les élections madame le maire moo signé acte bi loolu c'est pas élégant léegi an notre grande surprise ci bâtiment laat baabu bi 1er avril 2022 mooy kon Serigne boobu ko def léegi nag kan ngay gëm préfet ñoom ñaar ban la ci signé kon déjà jalgati commencé na loolu maa ngi interpellé ministère de l' intérieur interpellé président de la république mu rétablir la vérité des faits. dañ ne article cent quarante six du code des collectivités locales affectation des terrains publics spéculation sur les terrains publics dañu ko tere kon loolu moo tax ñuy jox la baabu fii kon jalgati nañ article cent quarante six ba pare li ma gën a jaaxal la DSCOS qui est chargé de faire la qui est chargé de faire la police. moom bu ñëwee fii fekk laaj baabu di tabax bu nangoo bagaasam balaa cinq minutes daa baabu indi waat Pape Mbaye Diaw Faly jéem nañ jokkoo ak nga xam ne nag moom moo di euh, promoteur wa waaye ñu junnoo euh, rek waxtaan ak moom ngir rek ñu daal di leen di jébbal li nga xam ne euh, moom moo di ay kàddoom ca woowule wàll mbokk yi waxtu jëtikati jotaay jot na léegi-léegi ak rédaction bu télévision Futur Média à partir de vingt heures lu mooy loolee itam ma jox leen daje incha allah ni ki à partir de six heures trente six seen émission info du matin mu ñeel revue jëf mbokk yi